Ben d'industrie au Sénégal. <laughs> parce que ça ça me pose toujours problème parce que damay wax ne moi, ma Si Mohamed VI buy ñëw au Sénégal. Mhm. day un avion un ah, mhm. entrepreneur ay capitaine bu ñëwee fii les trois premiers jours lu plus a mhm. la signature de contrat. absolument jox marché jox marché. des entreprises marocaines. Uh-huh. tey tu vois, l'économie sénégalaise ci juróomi tu la nekk ci France Chine. Inde Maroc Turquie. absolument commande publique. voilà jeex na loolu moo. xam nga état yi dañu ne crée pas d'entreprise. entreprise. Mhm. loolu la ñu L'État ne participe pas dans l'économie. économie loolu la wax bés bu mhm. pourtant ki n'y koy wax ki nga xam ne moo ëpp doole suñu économie mooy la France ni mu def bâtir ces ces ces ces généraux de l'économie là comme mhm. on les appelle. xam nga nan la ko am une agence de participation de l'État français agence boo xam ne liggéeyam mooy lan français bu ma gis mu yor secteur bu stratégique ak secteur bu souverain yor ci entreprise buy dox. Mhm. dinaa ñëw jël alal ju bëri participer ci entreprise boobu dooleel ko. protéger ko nag tu comprends. Mhm. injecté ci alal ju bon ba noppi di ànd ak moom nag fu mu war a dem rek naa ko jox contrat su ma contrat bu def bu am bénéfice man dama ciy am parce que l' est actionnaire donc. L'une des manières pour créer justement ces, ces, ces, ces généraux de l'économie, ces champions, mhm. c'est de trouver des Sénégalais qui savent nous, ngi ci secteur bi résultats am solo mais ils sont à petite échelle Nous avons des agence nga samp agence des de l'État sénégalais L'agence a une capacité qui xam-xam mhm. ak ci mën ci investissement am ay moyens nga accompagner sénégalais à travers des jël part bu bari ci ci capital accompagne sur un plan avec une stratégie moom mu ne ci kanam di doxal mais mu xam kat dans mon actionnariat j'ai des actionnaires qui nga ils représentent l'intérêt de l'État on n'est pas ici dans euh, entreprise nationale non hmm. l'entreprise reste une entreprise purement privée. privée qui fait qui a une logique commerciale hein. l'État est actionnaire. et peut-être qu'il nous sa majorité. majoritaire. l'objectif hmm. c'est quoi protéger cette entreprise Investir, injecter dans cette entreprise parce que l'investissement investissement yo xamné étranger bi bu ko duñu du ñu avantagé. Mhm. Le système bancaire bi du les banques financent généralement les la croissance. sur ah, les banques commerciales du nous financer des bi. donc quand yu mel nii Je vous jox la un exemple Aujourd'hui, euh, li ñuy consommer farine de blé c'est quasiment 160 milliards chaque année. 160 milliards 160 milliards. alal ju bëri la des farine de blé pour pour lekk mburu hmm mais tay sénégalais yi nga xamné paré nañ pour nekk des producteurs des producteurs agricoles de blé. Mm-hmm. ñooñu état war nañ mën créer une coopération nekk ak ñom actionnariat jox leen suuf accompagner leen gars yi di produire l'objectif sur 10 ans c'est de produire l'équivalent de ce qu'on importe. Mm-hmm. Bon, après ñun suñu modèle économique aussi Moi, tax euh, il faut que ma jaajëfal suñu cadre yi xam nga dañ ne substitution aux importations lañ nekk logique bobu lañ nekk. moy mm-hmm. xam nañ ne balance commerciale bi ak déficit déficit bi ak tant que inversé wuñ ko suñu réew fay nek da ngay nek réew mu nga da ngay exposé au choc externe donc si ñu doon jënd 160 milliards de blé à l'extérieur nañ fexé ñu produire l'équivalent de 160 milliards au au Sénégal sur une période de 10 ans on est en train de faire une mhm. substitution une inversion lepp lo que ñu ngi koy jël di andi nañ xol naka lañ ko ci biir wala lañ ko changer mhm. ak créer conditions pour que Sénégal dem foofu ce qui fait que xaalis bi day des ci réew mi loolu tam fàtte naa ko wax pour ñi gën a mën a comprendre politique monétaire nañu dem xool ce qu'on appelle triangle de Mendel triangle ba xam ne danaan la am na ñett yoo xam ne mënoo koo am mënoo am parité fixe hmm. monnaie boo xam ne du yëg du wàcc day taxaw rek ba noppi nga am capitaux yi di toog ci réew mi ba noppi am capitaux yi di génn ñett yi fa nga tànn ci léegi yow loo bëgg

parité fixe bi day permettre xaalis mën a génn hmm. alors que ñun xaalis bi génn arrangé wu ñun xaalis bi toog moo ñu arrangé mais loolu yëpp du lu ñuy lu ñu xam la lu ñu jàngat la mais du loo xam ne da ngay xëy këtt ne joon réglé ko non il faut d' abord bâtir suñu économie. Hmm. depuis nos territoires. avoir hmm. nos industries. avoir nos fexe mu leer ñu ne ñun bu crise amoon résilience am na boobaa nag te li ñuy ñaan yàlla bëgguñu sax am sunu monnaie bopp ñun dong kot. Nous avons soññee monnaie bi dañ plusieurs pays africains parce que le Sénégal le génie industriel sénégalais les producteurs les ah. l'agriculteur sénégalais va pouvoir nourrir vraiment tout l'ouest africain Nous avons une ambition donc nous ne limiter sur les détails débat monnaie euh, programme de l'économie. Nous, gis nañ économie ñun ñu monnaie ñu ah véritablement participer à l'évolution du débat Nous ñun nous challenger ci suñu planification stratégique bi ndax ku taxaw naan mu ne moom baaxul ci réew wala français fa baax na dégg naa euh, euh, nongo Samba si laa wax ko. Mhm. mu ne nit ku ne français fa moom dañ cee war a toog mooy jël nga assurance sous développement réew souscrire nga une assurance pour sous développement Ndongo et j'ai bien aimé ni mu ko waxee. Mhm. par contre man en tant que planificateur et gestionnaire damay wax nit ñi lu manière claire ñun nous sommes des gens responsables du fait fekk instrument français fa loo ko bañ bañ bañ monnaie bi ñu yor nii. Mhm. nit ñi am confiance. Nous avons fi teg ëllëg nit ñi dañ am confiance ñun objectif spécifique c'est pas rek am suñu monnaie bopp non suñu objectif c'est le développement économique de ce pays. Ça commence par le développement du secteur primaire, l'industrie, et surtout créer un marché. Surtout l'industrialisation. Parce que ça règle le problème de l'emploi. Ça règle le problème de l'emploi. Mhm. Ça règle le problème de la balance commerciale. Mhm. Parce que produits, importé.

andi ñu di ñu ko jaay di ñu jaay miettes yi à un prix extraordinaire alors que tay bu ñu jëloon les les les pêcheurs organiser len en coopérative former len jënd ay bateaux yu bax yu mëna a permettre ñu dem japp ton bi ñom dañuy japp andi buñ andé ñu xol Sénégal ñan ñoo fi que dans la transformation de poisson industriel état jël ci part def ci injection jox len équipement yi. ñom buñ ñu ñu jënd ton bi ci loxo pêcheurs yi pêcheurs yi encaissé xaalis. Mhm. fay sen bor nek sen jam ñom ñu transformer ko jël ton bi def ko ci ay pot de sardine le jour parce que jën bi nga xam ne dafa naron neub boo xasse def ci pot de sardine rek. Mhm. sa valeur commerciale conservation nga mën ko commercialiser sénégalais bi am pro protéine nourriture bu bax mhm. bu sen bu yomb. ndax ton bu japp légui transformer ko ci réew mi. Mhm. Euh, day bax ci sa poche yow Pape Alé parce que bu dee yow boko ko jëndé 3000 mais comme sa dëkk lañ ko défé nga ko jëndé légui 2000. tu économises 1000 francs mais ton bi nga xam ne léegi ëpp na loolu dañ ko yóbbu jël ko Espagne yóbbu ko Espagne jaay ko mais xabaa xoolal prix prix saumon bi foofu saumon mën na coûter ay treize mille quatorze mille donc xaalis boobu day dellu si ci réew mi parce que fii la jóge ñun logique yooyu lañ nekk ba noppi nag marché bi bu ñu mënee am un grand marché africain ñu bokk ñu bokkandoo benn monnaie hmm. bokk souveraineté monétaire boobu partagé ko ak ñoom loolu mooy suñu objectif bi gën vous faites ne nag dañoo africains yoo xamante dans 20 ans beaucoup am monnaie. Mhm. alors que nous, pendant ce temps nous avons une stratégie pour au cas où on doit se retrouver seul au bout de 15-20 ans il va falloir que nous jël suñu responsabilité. mais je pense que le débat a été lancé au niveau de. et le débat a été lancé au niveau de Nous, nous, nous que motax wax souveraineté monétaire nekul wax sama monnaie bop man kott non souveraineté monétaire moy la possibilité d'utiliser les toutes les fonctionnalités de la monnaie pour son développement économique. mais préalable bi moy préalable bi développement économique. ok espace bi moy priorité bi sax que monnaie bi en tant que telle. Hmm. donc nous on est cohérent dans ce que nous disons. boo jëlee temps dégluñu di nga comprendre ni une planification lille la une priorité li la un objectif réel. moy am ben monnaie à travers. am gérer France <laughs> moo tax nag gérer de France de yàgg laa wax fii ne bu guerre amoon diggante Sénégal ak France billaay di nga gis ku ñuul kukk dem taxaw la ne jël arme jiw nga ne déet waay mm.